rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullah ginnaaw bañ sante suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi delluwaat di seedeel yi amul benn buur mat a jaamu ci dëgg jaamu ko indil njëriñ jaam bi àddina ak àllaaxira ñàkkaa jaamu di ko indiloon àddina ak àllaaxira ko du borom bi subhanahu wa taala mbokk ñu ngi ñëwaat ak yéen seen émission le rappel bi weesu ñu ngi yemoon ak yéen ci wàllu sant yàlla nga xam ne borom subhanahu wa taala ba tey day la ci la nekkul lu la ñuy yóbbu mooy ak pertange ndax yàlla suñu borom boo na wi wan naa la yoon wu a ñaar rek moo am yow doomu aadama bi ñaar choix nga am mooy imma shakiran nga nekk koo xam ne da ngay sant borom subhanahu wa taala foo toll ko sant di xool xéewal yi nga xam ne defal na la wax ci sant wa imma wala nga nekk koo ne da nga koy weddi saa su nekk gis ne yàlla suñu borom moom defalul la dara te mooy li lay sa problème yi nga nekkee yi nga xam ne moom la doomu adama bi di di dajale dundam ak xat yi xol bu tëju bi lépp ak ak ña ak euh, jàmbat yu bari yi muy nekkee yépp bëri na ci lu waral moom mooy ñàkk sant borom subhanahu wa taala ndax yow doomu adama bi xoolal ci yi ma lay limal bu fekkente ni nii di maanaam mi ngi ci yow xamal ne yow ku mat ku war a sant borom sant nga ndax amul leneen li ko benn borom bu mag di waxee benn bés benn taalibe bu mag dafa ñëwoon ci moom di waxtaan ak moom ba mu yàgg mu ne ko waaw dama la doon laaj ndax bu fekkonte ni borom sant la jëloon na say bët ndax pare nga pour génne ay millions yi millions yi millions pour jënd bët yooyu bu dee gis nga ku la koy jaay mu ne ko ah kay bu fekkee yàlla dafa jël sama benn bët ma yor mboolee alalu àdduna bu bari ñu laaj ba lema ma naa ko joxe pour sama benn bët boobu ñëwaat man dinaa ko joxe pare naa pour joxe ko ndax bët moo gën a cher loolu waaye depuis kañ nga nekk ak say ñaari bët waaye kañ ngay xam efficacité bi wala màggaayam wala xéewal gi mu nekk ci yow mooy kero bi nga taxawee ñàkk ko wala benn bi di métti ci ngay doog a xam li nga xam te ni si moom moo doon njëriñ li nga xam ne moom la borom santaral defal ci bët boobu ana kañ ngay xam nopp xéewal bi nga xam ne moom moo ci nekk ak màggaay bi nga xam ne màgg na ko ak riche bi nga xam ne riche na ko kañ nga koy xam mooy keroog bi nga toogee bëgg nopp yoo déggee te amuloo ko borom santaala xañ la ko rek même bu fekkee benn waxtu loolu ko xañ sax ci ngay doxee xam ne loolu xéewal bu màgg la woon bu la borom santaala du joxoon ndax yàlla suñu borom wax na na wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn nee na xanaa nekkul ne man maa leen jox ñaari bët wa lisaanan wa shafatayn ma jox la làmmiñ jox la ñaari tuñ imaginel yow bu fekkonte ni yow miy wax tey bay jàmbatee sa làmmiñ boobu naan borom wala yàlla sàngam sàng lan lay xaar ci man bu fekkonte ni suñu borom dafa daggoon sa làmmiñ boobu def la mënatoo wax ndax ci boobu jamono bu ñu la laajoon lépp lu am alal ci àdduna pour nga mën a am benn làmmiñ boobu mën a waxee ndax doo ko joxe ah kay da koy joxe moo tax yow jaam bi dama lay dénk dénk sama bopp ñuy sant borom subhanahu wa ñuy ndaxte suñuy loxo mënuñu ko koo fay moom yàlla suñuy tànk mënuñu koo fay suñuy bët mënuñu koo fay bu fekkee lu ñu ko war a santee am nañ ko ba doyal kon nañuy del di ci sant borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci mbooleem ñuy defal kon balaa dañuy wax ci façon yi nga xam ne doomu aadama bi ci noonu la war a sante borom subhanahu wa taala bi maanaam nit ki nga xam ne yàlla suñu borom daf koo dénk alal ana nan la war a sante borom subhanahu wa taala ci alalam jooju nan lay sante yàlla bu dee yàlla suñu borom daf laa dénk alal xañ ko say morom nga bëgg cee sant alhamdulilah kese du ci doy déedéet donte que nag alhamdulilah sant yàlla la waaye bu dee yàlla dalaa dénk alal alhamdulilah kese laaj ñu la ko ci li la ci laaj mooy nga jël alal jooju sant ci yàlla bi maanaam mooy nga jël alal jooju dimbali ay doomu aadama jëlal alal jooju bu ñu la laajee del joxee وانفقوا مما رزقناكم ليا الله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه لولا يا الله نانا جينال سي ليغا خاندي موم لا لا دينك ياو جامي غا سي جوخي دي سي генي مانام نيك خاندي كو جينال غاي دون سي لا يالا سون بوروم دينك كوم نيكو محمد صلى الله عليه وسلم نيكي وون يونتي بي صلى الله عليه وسلم نان سان دي سي الله لب لوكو بوروم سبحانه وتعالى جوخون بو نيت كي نيوي لاج كوكو داكاي جوخي يا عائشه صرف ني نتالي موني سي يونتي بو تاد بي محمد صلى الله عليه وسلم سا سا دي دا نيو لاج كو مو جوخي keneen ñëw laajaat ko mu joxe keneen ñëw laajaat ko lu fekk mu yor dara yonti saa si ko toogal xaar fii yoruma dara bii jamono waaye toogal xaar lu ñëwaat yaay borom mu ne mu toog ba mu yàgg keneen daal di ñëwaat laajaat ko moom sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko demal nga leb ci bitig bi demal nga borom bitig bi ci sama tur bu dara ñëwee rek man dinaa ko fay insha allah xanaa loolu moom mooy générosité te yaakaar naa ni kooku la borom subhanahu wa taala waxoon ci quran ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana defal nañ leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii mu nekk ci yéen royukaay wu rafet li man kaana yarjullaha wal yawmal axir pour ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ak bisub yowmal xiyam muhammad salaa mooy suñu royukaay te xool leen ni mu daan sante yàlla ci alalam xool leen ni mu daan génnee ci alalam donte que comme ni yàlla suñu borom ci quran wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa donc nañuy pare kon pour di génn ci suñu alal bien yàlla suñu borom jox boo ko ci sant da nga koy joxe da nga ciy génne ndax yàlla dëkk ak nit muy xiif di mar mu leer na ne am na loo ko dimbalee te mënoo ko dimbali loolu du xalaat tay bu ñu ñëwee tey dëkk bu mel ni suñu réew bu fekkante ni képp ku am alal génnewoon nga sa alal dimbali ñu nga xam ne ñoom nga dendal yaakaar naa pauvreté sax dootul bari àdduna bu boobaa dootul bari bu ñu ko tegoon rek ñu bare bare bari dinañ mujj di toog di sant seen borom ci xéwal yu mel noonu lii benn xissa la boo xam ne dafa mat di bàyyi xel ci sujet bi may wax nii ku nekk boo amee dara lu mu tuuti tuuti génn ci jox ci ki nga tane xoolal kii benn benn benn benn benn benn benn soxna la soo xam ne dafa ànd ak ay doomam ndeysaan coono àdduna dab ko mu dem ba amatul lu mu lekk amatul fu mu dëkk amatul lu mu naan ne xaaral ma jug dem ci sama dëkkandoo yi ñaan fa ndimbal waaye xoolal bu ne yàlla dogal suñu borom subhanahu wa taala soxna soosu bi mu jógee dugg ci kër gi mu njëkk a jot dafa fekk ne moom dëkk boobu mu nekk mu daal di nuyoo imaam bi fay ko mu ne ko waaw yow imaam man day tey soxlaa ma fi indi ndaxte tey aw ma lu ma lekk aw ma lu ma naan sama jëkkër dafa génn àdduna sama papa dafa génn àdduna xisa bi imam Zahabi moo koy nettali imam Zahabi nee na imam bi nekko ko yow bu fekkente ni sa papa dafa génn àdduna sa sa jëkkër génn àdduna ana ay këyit yu wane ne ñoom dañoo génn àdduna mu ne ko déedéet génn nañ àdduna waaye am awma ay kayit yu mu ko wane imam bi ne ko génnal kër gi demal sa yoon nii rek ngeen di def di di nii rek ngeen di def di di wër ci kër yi di taxawaalu lu nekk ngeen wax waaye dara jotu la génnal kër gi daal di dàq soxna si ak ay doomam soxna si daal di génn dem yoonam ak ay doomam ndeysaan commencé jooy mu duggaat beneen kër ñu daa koy ñàkkaat kersa ñàkk ko teggin mu duggaat beneen kër ñu ñàkkaat ko kersa ñàkk ko teggin ba soxna si mujj dugg ci kër goo xam ne nekkul sax jullit nekkul sax jullit gëmul ne sax yàlla am na mu dugg ci këram daal di nuyoo kooku dañ koy fay soxna si ne ko man day tey soxlaa ma fi indi ndax sama jëkkër dafa génn àdduna sama papa dafa génn àdduna te aw ma lu ma lekk aw ma lu ma naan aw ma fu dëkk ma ak doom ma bëggoon nga ma te yàlla rek tax waa ji ne ko bu nekkee ne loolu dalaa dal tey am nga foo dëkk soxna si ne ko ah mu ne ko waaw néeg bee ngay seen mu ne ko waaw mu ne ko bis ni ki tey jox naa la ko fa ngay dëkk dinaa la dimbali bu dee lekk boo boo lekk nga soxla bis tey maa lay yor maa yor say doom di nga lekk ba suur te doo ci sonn bu dee naan dinaa la ko jox bu ne say doom li ñuy sol dinaa leen ko jox dinaa la ko jox yow mi toog soxna si ne ko waaw jërëjëf jërëjëf daal koy sant daal di fattu ci néeg bi imam bi guddi jot imam ba ko dàqoon guddi jot mu tëdd gént lu doy waar imaam bi gént benn waay ju rafet ju toog ci benn étage ci àjjana imaam bi daal di dox ba ci moom laaj ko yow la kan mu ne ko man la mu muhammad sallallahu alayhi wa sallam man la yonent bi jullit ñi mu ne ko waaw yaa rasulullah yow kër gi nga toog rafet na trop waaye kër gi nga jàkkaarlool rafet na trop kan moom kër gi nga jàkkaarlool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii de kër gi de ku gëm yàlla rek moo ko moom imaam bi ne ko kon kay xanaa man kon mën naa moom kër gi ndax man damaa gëm yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi ne ko ci gént gi ndax am nga ay këyit yu wane ne yow da ngaa gëm yàlla ndax am nga ay këyit yoo may wane ni da gëm yàlla ba ma jox la kër gi nii rek ngeen di def di wër naan da ngeen a gëm yàlla te amoo leen ay këyit acca jógal fii génn fi imaam bi daal di daw génn daal di tiit ci gént gi yeewu imaam bi bi mu yeewoo tiitaange jàpp ko xamante lu muy def mu daw génn këram daal di fëgg kër gi mu dendal gaa yi tijji ko mu ne leen ndax amul benn soxna su fi ñëw ànd ak ay doomam di laaj ndimbal waa kër gi ne ko ah am na imaam ne ko nu nu ngeen ko def ñu ne ko dañ koo dàq imaam bi ne def ngeen lu ëpp de daal di dawaat duggaat beneen kër fëggaat ñu tijji ko mu laaj leen ñu wax ko la même chose mu fëggaat beneen kër dem nag ba yegg ci kër gi nga xam ne gëmul yàlla ki fat fëgg kooku tijjil ko mu ne ko ndax amul soxna su fi ñëw ànd ak ay doomam di laaj ndimbal mu ne ko ah, kay am na mu ne ko ana soxna soosu mu ne ko mi ngi ci biir mu ne ko xolal wuy ma xaalis bu bare ngi nii libéré ma soxna si ma yóbbu ko te nga jël alal ji waa ji ne ko imaam déedéet du ma du ma ko du ma la ko libéré tin sa alal soxla ma ko imaam ne ko déedéet déedéet bay rek ma ànd ak moom dem jeul ala jangi waji ne ko imam soxla ma sa alal lolu nga seen ba tax ngay perti perti mako mom imam ne ko yow yang may bëgg jaxal de dal la seen mu ne ko li tax nga ñëwaat fi di laaj soxna si pour récupérer waat ko man ma mom lolu nga gis imam ne ko kay expliquer ma lan la gis waji ne ko keroog bo faté soxna si ba dimbali ko jox ko mu lek jox ko mu nan fat tok ay domam waji ne nee ko ci guddi gi dama damaa tëdd gént ben waju taru bu rafet dal di toog ci ben étage bu rafet mu ne bi ma ñëwee étage bi waji mo netal imam bi étage bi rafet ka fa tok rafet mané ko wa yow mom taru nga torop yaay kan mu ko man may Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam yonentab jullit mu ne ko ah mu ne ko wa mu ne ko way keur gi nga jakkalon rafet na torop mom tamit dafa gënt lool Muhammad salaas ne ko keur gi ne ku gëm yalla moko mom moom mu ne ko waaw man nan la def bëggam yalla ba mom li mu ko ndaw su ci yow la demal ci mom mu tuubal la dugal la ci lislaam bu ko defee boo deewee yaa moom kër gi waa ji daal di nekkal bi ne ko imaam li moom moo tax moom moom kër gi waaye leer na ma ne moom nga gis moo tax nga ñëwaat toppaat ndaw si waaye maa ko moom bis ni ki tey ndax bi ma xëyee tuub naa ba dugg ci lislaam lan moo may waa ji lan moo ko may moom mooy xool ku sonn mu dimbali ko sant yàlla si alal ji mu ko jox soo xool ku sonn ku mu tane mu yëkkati dara dimbali ko moo tax nañ koy su nekk te gëm ne borom santaala lépp lu mu def suñu àdduna lu war la nekkul lu warul lu war la lu ñu am nañ ko ci sant joxe ko kii benn élève la boo xam ne dafa demoon defi examen bi ñu ñëwee ñu ne ko examen bi amoo ko mënoo ko maîtriser mënu ko muñ mu génn day xaru nee nañ bi muy daw bay jéggi tali bi daa benn accident bu am accident bi benn xale bu yor saagam ak benn maire bu tëdd ci suuf oto bee ngi jaar ci kawam waaye bi faatu na mu laajte kii kan ñu ne ko maire dana yóbbu bi pour mu jàngi oto euh, ci la accidenté ba faatu mu téye ci loxo xale bi ne ko kii moom mooy sa yaay xale bi ne ko waaw mu ne ko an sa papa mu ne ko gaañu na ah kon an sa yaay an sa an say frère xale bi ne ko ñoom ñëpp gaañu nañ sa sœur mu ne ko gaañu na kan moo la dese woon mu ne ko sam kii rek ki gaañu nii tey rek moo ma dese woon kese moo desoon sama àdduna maa ngi nii sama jàng sama lépp yàqu na waa ji ne na bis ni ki tey lépp loo xam ne suñu borom tegal dama ko sa àdd sama àdduna dinaa ko ci sant xam ne lu gën la ma leen di digalaale benn mbir ci waxtaan bi mooy nañuy faral di doxantu ci hôpital yi di doxantu foofu parce que gis nañ ne tey société bi nee nañ quatre-vingt pour cent de la population dañu stressé foo leen fekk ñu ngi naqarlu nañu doxante ci hôpital yi gis nga boo demee hôpital am na ne boo fa duggee am na si ñoo xam ne bu ñu noyyee dañ leen a sampal ay butéel ba heure boo demee di nga fa fekk am na si ñoo xam ne seen ay mbokk ñu ngi taxaw di leen xaar ñu faatu pour ñu mën leen a robi am na si ñoo xam ne amputé nañ seen ñaari tànk bu ñuy dox dañuy direeku am na si ñoo xam ne amatuñu ñu dégg duñu def dara yow mi dox ci hôpital ba bu sa bët tegoo ci sant yàlla ci lim la may loolu moo waraloon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee dafa yoroon lu ndaw loo xam ne da koy xeeb sax da ngay dégg ci ay waxam mu ci sant borom sant la yonent bi sax ndaw sol yëre yëre yëre même bu fekkente ne da nga ko jëndee mètre 300 déglu li mu la yonent sax ndaawul sol yëre te waxal alhamdulillahi alladi kasaani hada wa razaqanihi min gayri xawlin minni wala quwa daawul wax maa ngi sant yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo wërsëgal sama yëre bii ci loo xam ne nekkul sama pexe nekkul sama kàttan xoolal sant boobu yonent sax daan sant yàlla noonu lañ ko war a sante ñun tam bu ñuy sol yére di sant yàlla suñu borom mi ñu may yére te ñaata nit ñoo toog tey amuñu yére bu ñu sol alhamdulilahi rabbil alamin xoolal bu baax yun saasam bu daan lekk alhamdulilahi alladi at'amani hada wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwwa dara maa ngi sant suñu borom mi nga xam ne moom moom ma wërsëgal ñam wii wërsëgal ma ko xéewalal ma ko ci loo xam ne nekkul sama pexe nekkul sama kattan xoolal nekkul sa pexe nekkul sa kattan moom la neex rek mu jox la nga lekk moo tax santal yàlla bu baax a baax ci mboole mi ay xéewal yoo xam ne borom subhanahu wa taala da la ko defal te lépp loo xam te nii safaan la bu dal ci sa kaw nga jàpp ne loolu sax dañ cee war a sant yàlla ndax loolu sax daa gën loolu sant yàlla loolu jaar nañ ci ba pare kii benn xissa la bu ndaw boo xamante ne benn benn sama benn kilifa moom ko mosoon a nettali nee na waa ji tabaski dafa jot mu yor cent cinquante mille francs di préparer pour tabaski waa këram di ko xaar doomi di ko laaj à chaque fois papa ana xar bi nee na année boobu seen waa kër jooy lañ tabaskee ndax fi ñu dëkk dafa wéet kenn mayu leen ay yàpp ceeb lañu lekk nee ci ngoon gi benn feebar daa koy daaneel feebar bu métti ci ngoon gi ci jour tabaski bi ci ngoon mu xëy suba ñu yóbbu ko hôpital hospitalisé ko médecin bi dafay analyser am def ay lépp génne papier yi teg ko neleen leen lii feebar bi ko dal yàpp moo koy yokk ci nit yàpp moo koy yokk ci nit te eggoon na ci benn étape boo xam ne ci benn phase boo xamante ne bu lekkaatam yàpp tuuti rek lii mën na koo rey mbaaxoon yàpp bi mu lekk mbaaxoon seen kër bariwul yàpp ndax bu mu ci lekk lu bari mën na koo rey ci saa si ñu daal di nettali médecin bi ne ko ñun kat xaru tabaski sax ren amuñu ko xaru tabaski sax amuñu ko dañoo dem ba ci jour bi suñu xaalis réer moo tax nii lañ toogee tabaski wuñu nee na médecin bi ñu ko nettalee lii dafa toog ci sées bi ne leen hasard bis ki tey gëmatuma ne am na hasard amul ndax kii bu lekkaatoon yàpp lu bari benn quantité rek day dee mën na cee faatu léegi nee na moo ñu bindal leen ordonnance ordonnance bi nga xam ne moom moo a def traitement bi yëpp ordonnance bi yëpp bi ñu ko calculé 150000 francs la ordonnance bi yëpp nee na bi ñu ko calculé 150000 francs la te médecin bi en personne moom moo ko mujjee fay kon lii sant yàlla la buy wane ne encore une fois yàlla suñu borom lu mu def ci sa dund ji rek day caagi day aju ne nga xam ko wala nga ñàkk koo xam ne daa gën santal yàlla bu fekkee da ngaa ñàkk moom day naqarlu santal yàlla ndax amaana boo amoon tey musiba am wala kan moo la tey yàlla suñu borom dafa laa nam gudd fan te leer na ko ni boo lekkee sa alal ji nga war a yor boo ko lekkee bu jeexee da ngay faatu parce que fii ku nekk bi ngay judd bi nga amee 40 jours sa biiru yaay yàlla bind na wërsëg biir nga war a lekk tey imagineel yow 1 million nga war a lekk sa diiru dund 1 million nga war a lekk sa diiru dund mais yàlla dina ko jox par goutte ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ngay jooy te xamoo ne bu la joxoon loolu 1 million yëpp ñaari fan doo fa defaat da ndax moo la ko gën a xam yàlla suñu mënoo ci gën a bon ci yéen des fois ngeen وهو خير لكم فك مو گنسير موتاخ لي امبا اموي والله يعلم وانتم لا تعلمون يالا مو خم نون خمو نيو نانكو سانت سي لب نانكو سانت سي بيب مير نانكو سانت سي لب لومو داف سي نون مو خم لو نيه لا سي نون مو خم لو نخاري لا ناني واخ الحمد لله على كل حال كون ماي و سما بوك دي و سما بوك جولي نيب نيو الحمد لله على كل حال كيب كو بوج خيوال نك بو خا نبو ماغلا ورسغو ياتو بو تيجيب با نيب نيلا كيب كو تي بوج جيرال سيكري بي مالاي واخ لب لو لا سي نون بروم خيوالي داي كو خول دي سي سانت بروم سانت دارا xamal ne loolu day yokk ay xéwal bu baax a baax yun saasam nee na képp kuy sant yàlla suñu borom ci xéwal bu mu la jox yàlla suñu borom di ko yokk yàlla suñu borom nee loolu la wax sax neen la in shakartum la azidannakum boo mu santee ma dolli la kon nañ boolu ñun ñëpp ñuy sant borom subhanahu wa ta'ala ndax lu ci jub ci borom subhanahu wa la jugee lu ci dëng si ñun la dañ doon jéem rek ay nit lañ ñu ngi leen joxal rendez-vous seen prochaine émission de rappel ci Pikine Info asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa